tey jii di fan ci yor décembre ci atum 2021 bi la bis di date bu ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum transport joxewoon nañ ko ngir di xamle ne bis bi bu ñu ci accès dem ak dikki bi dina gàllankoor ci biir réewum Sénégal ñoom ñi dey di yëngu ci wàllum transport fii ci diggante Touba ak Mbacké nemmeeku na ne loolu yi doxal nañ ko fii ci diggante Touba ak Mbacké lool yi sax waral ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi yëngu ci wàllum transport ñoom ñi la dee xëy gàllankoor li nga xam ne moo di dem bi ak dikk bi baare li nga xam ne moo di route bi bàyyeekoo Touba jëm Mbacké ngir ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñoom mën a bi les grèves ci ay yu néew fii ci diggante Touba ak Mbacké ñi nga xam ne ñoo di police daal di amal intervention ngir ñi nga xam ne ñoo di yooyu manifestant yi daal di lu ni mel ginnaaw loolu ama nan ab doxantu ci garage dakaar bu bees bii ñi nga xam ne ñoo di kilifay transport yi day di dikkaat ci li nga xam ne moo waral grève bii. tey lu xew mooy liggéey bu metti bi ñuy liggéey te mënuñu ci am benn rendement mu mel ni liggéey bi ak toog ñooy am liggéey nag bu yemeeg toog borom sañ naa toog. mooy xam nga dëkk bii di Touba moom spécial la dafa am war mooy boppam loolu moo tax. bi Sénégal gépp dee taxaw te Sénégal gépp président Idi Ka mi yilif ko ndax mooy président national mu ne dëkk bii moom c'est spécial bu mën da ñàkk taxawit nañ taxaw ci kaw ab yar ak i teggin ak uk taalibe benn oto dawut benn oto dawut mën naa la ne wax ne la dëkk bi moom defal tour boo fi gisul sareet gisoo fi lu yor moteur luy tourner parce que geraw bi chauffeur yi ñoo ci d'accord geraw bi jusqu'à nouvel ordre li ñuy bëgg nu am ko rek jusqu'à nouvel ordre amul limité. ñi nga xam ne ñoo di sëfoor si ñoom it ànd ak ñoom ci grève bii di xam ne nakat lii nga xam ne moo di jafe-jafe yi bëri na lool ci wàllum yoon wi ci dem bi ak dikk bi. ay sëfoor la mais ñun ci àll bi bu ñu fa jógee nag léegi ñu ngi jaar euh, allié bu ñëwee foofa montage su malem kii nañ fay fekk bu riba bi 5000 nañ ñuy fayloo dégg nga bu ñu jógee foofa ñëw xel xom fekk fi bu malem odaar bi fekk fi bu malem odaar bi bu malem odaar bi mi ngi fayloo 2000. ak bu ngay maam Balla bi mooy jógee Colobane 2000 la ñuy fay soog ak si njurul fay 2000 léegi soog a dugg si Touba nag jànkonteeg police yi te loolu lépp daa métti si ñun amul fenn fu ñu koy jooytoo nag fu may fii ci garage bu mag bi buñ dëppee di ñibbiwaat dañuy aussi dañuy fay waat police yi nu waxee dañuy forcer par force dañ leen di fay ñun benn oto ci àll ba benn oto ñu xëyut ñëw yëpp nga taxaw ci àll bi ndax grève bi. lii nga xam ne nag moo di grève bi am ci wàllum transport bi ci diwam Sénégal gépp donte métti na lool ci askan wi am na ñoo xam ne jamono jii seen bamba mi ngi ciy mancé muy ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum sareet tey jile day bis bu neex lool la ci ñoom. ah garaaf bi rek sa waay ñun nii rek lañ ko gisee de waaw ah, ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla sant yàlla baax ñu ngi sant yàlla baax waaw fii waaw am na nañu man de sama classe bi moom waaw dañ def te yàlla tax rek ñaar fukk la ñuy def garaaf Dakar rek laa yem cent franc waaw client yi waaw ñu ngi ñëw par benn de amaguñ ko xanaa takk deri léeg-léeg ñu bëgg ñëw waaw xam nga rek waaw yaa a xam moom seen i bagage waaw sant nañ yàlla baax sant nañ yàlla baax sant nañ yàlla baax xanaa def comme lu traite bi laaj rek cent franc rek ba garab bi jeex man nag sama son laay def tey dama xëy yor saret rek waaye man maçon mooy sama liggéey ngir dem wala dikk fii ci diggante Touba ak Mbacké ngir man a dem ak dikk faaw da ngay yëg ci lii di sareet ngir mën a doxi sa yitte bi la na nekk lu metti lool ci askan wi rawatina ñii nga xam ne ñoo di élèves yi tey jii dey yëg nañu lool lii nga xam ne moo di grève bii transporteurs yi amal ci réewum Sénégal gépp